asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 23 septembre 2019 ñu ñëw ci yëglekaay yi kaay yi nag moo xam Leewtoo TV la wala sunu lamb wala record ku mu ci mën a doon daal tey li nga xëyee lenn la maanaam CNG bi nga xam ne day ñoom ñoo doon samedi fa nga xam ne moo doon ci arène nationale doon def nag li nga xam ne ni moo di bilan rawatina nag lu jëm ci mbirum li nga xam ne moo di xaalis ba mel ni ki nag ñëw nañ ci bu baax a baax a baax ca la nga xam ne nii moom la ñu encaissé ak la nga xam ne moom la ñu dépensé bu fekkente ne day ci wàllum relikaay yi la day yëglikaay bi mu ngi xamal ne day li nga xam ne nii moom moo di ci wàllum droit d'organisation gi mel ni ki noonu daal jàppal deux cent trente et un francs loola génn na fa ci wàllum sanction pépinière yi nag moom li leer ba leer day quinze millions huit moo fa a génn trois cent soixante huit mille cinq cent quarante francs la yëglikaay bi ñëw na wax ñu ko ci wàllum li nga xam ne nii day moom moo tamit wàllum yeneen ya nga xam ne daal ay mbir la yoo xam ne day lu jëm ci wàllum honoraire arbitrage yaag mbirum médecin médecin yaag superviseur yaag yu mel ni kii noonu day jàppal la fa génn moom toll na ci quinze millions sept cent quarante neuf mille francs yëglikaay bi ba tey moom mooy wax mu mel ni kii nag leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi daal lépp lu jëm ci wàllum xaalis daal ñëw na ca bu baax a baax a baax mel ni ki nag kon la ñu doon def day wala soldu ya moom positif na docteur Alioune Sarr nag am na yoo xam ne day bëgg na ko ci làmb ji wax na ko ca Leewtoo TV la mu xam ne daal mooy li leer ba leer day bëgg nañoo jël ay décision ci mbirum enceinte beeg ña ca suuf ak yooyu yëpp gën koo raxas gën koo defar ba mbir yi gën a baax presse bi sax jàpp nañ ne fi mu nekk nii de li ñu war a def mooy di fay bu ñu bëggee sax di couvrir yenn événement yi mu mel ni ki nag fi mu nekk nii de li leer ba leer daal wax ja moom kera amoon na ku ci nekk wax nga waaye njàmm joob itam ma nga xam ne day moom mooy directeur administratif ba moom tamit day waxam amoon na solo waaye ñoom ñëpp daal ku mel ni Mouhamed Ndao Tyson tamit moom la mu xam ne daal nee na mbir nag li leer ba leer daal li ci am lenn la bi benn problème la mu ngi koy wax ca Leewtoo TV ne lay leer ba leer moom ba mu duggee ca CNG ba ca lay doo a xam ne nekk CNG gàllaaj moolul fitee waaye tamit la mu xam le moom tey seen daal ne na lay leer ba leer mbir mu mu mën a doon bu juddoo day bu juddoo dana dund màgg su màggee nag la cay topp moo di nag dee moo tax mu yàq ne fi mu nekk ni day làmb ja wala boog ñu jiite dañoo dem ba nga xam ne ni day fa ñu taxaw fi mu nekk ni ñu defati dara day xaw a jafe xanaa kay indiwaat sax yeneen ak yeneen yoo xam ne day ay xalaat ak ay mbir yu bees teg ngir mbir ma gën a mën a dox ndaw tey Tyson moom moo xëy tamit di wax lu mel ni kii noonu waaye ñun dañuy continuer jàppal ñii moom seen bilan la yëglikaay bi di sunu lam xëy tey muy waa école de lutte Habib Ndiaye dix yi ñu def day am nañ ca six victoires quatre défaites yëglikaay bi xëy na tey ñëw wan nu leen mu mel ni kii nag ka nga xam ne nii day moom moo di seen tête de file di Batista moom de nekk na tête de file boo xam ne day fi nekk nii sax est-ce que defu ko wala ñu bokk ñu ko gisati mel ni tamit promoteur yi leen jublu ba tëgg leen bariwuñu de déception ba nag ca école de Abib Ndiaye kenn la mooy alliance Balde yëglikaay bi ne moom day déception dëgg-dëgg la fa waaye am nañu ab révélation de Pape la ñu koy wax waaye leneen loo xam tamit yëglikaay ba gis na ko fa mooy kii nga xam ne nii day moo di soldat moom tamit daa mel ni day moom soldat mission moom accomplir na ko Habib Ndiaye itam mu ngay wax moom mu nga xam ne nag moom moo di seen kilifa waaye leneen loo xam ne nii day ak beneen école boo xam ne nii day yëglikaay bi di sunu làmb moo ñëwoon def seen bilan defal leen douze victoire mu mel ni ki nag yëglikaay ba la mu defan xam naa da caa am ak njuumte moo tax tey mu xëy di ko leeral muy économique Cheikh Mbaba mu mel ni ki nag kon douze victoire ya mu am waxoon day demewul noona onze victoire la am cinq défaite ak benn sans verdict yëglikaay bi xëy na ñëw tey di ko leeral la waraloon nag mu ne dix victoire ya nee na jàpp ne da caa bokk bokku ca mooy Ahmed Lagros te Ahmed Lagros école ba da jon fa la nekk waaye nekkul fi nga xam ne ni moom moo di ca Habib Ndiaye yëglikaay bi xëy na tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki dañu koy fekk fa nga xam ne mooy ca Leewtoo TV lay njaay mi nga xam ne nag ab promoteur la ñëw daaw ci làmb ji mel ni ki nag ren saison bi teel na koo pare ndax nag suñata ak kéwél bu bawal taxawal na ko mel ni ki ci këram ca sigaa mbaaw fa lañ doon defee nag seenub signature wala boob xaatim combat ba nga xam ne moo leen war a boole promoteur ba nag nee na la ko yëkkati lenn la ñoo ngir dimbali ñi nga xam ne nii ñooy xale yi rawatee nag xale mbir yi nga xam ne dañoo nekk ci ab goxam suñata nag moom ki nga xam ne moo di kéwél waxante nañ fa waaye saaliyu ba moom ma yore ki nga xam ne moo di kéwél nee na suñata ay mag kese la daan ma ci kéwél ñaari salaam maaleykum sawru faal ne ko d'accord ak lu mën a xew li leer ba leer daal man maa ngi ñaanal ki nga xam ne moo di sama mbër muy Sunjata mu am ndam Sawru Fall moo yor ki nga xam ne moo di Sunjata waaye ñaari mbër yi nga xam ne tamit war nañ caa bëre muy Maam Mor ak ki nga xam ne nii day moom moo di Sidi jàmm gën Maam Mor waaye ka ko fa teewal wax na ba ne xaaw na ko man day wax ji jaru koo bëril buñ ca yeggee di nga xam ne basi moom góor rek moo koy bay mel ni ki kon lay njaay daal ñëw na record itam ñëw na moom itam indi li nga xam ne daal moom moo amoon bërki démb fa nga xam ne mooy ca arène nationale ba jàppal yëglikaay bi itam ñëw na ca ci ak yaatal waaye dañuy dem fa nga xam ne nag moom moo di ca Leewtoo point net lañ fay fekk nag mooy bi MMA bi moom mu nekk nii daa mel ni jax na ndax nag le 17 décembre moom ay jongante ñoo nar a am Sénégal rawatina fii nga xam ne moo di stadium Maris Ndiaye li leer ba leer Bombardier moom ca lay bokk muy bëre combat bu mag ba wala moo koy jongante muy MMA ba waaye Reug Reug itam Leewtoo point net xamal nañu day moom it ca lay bokk ndax nag am na combat MMA waaye booy bool itam am na combat MMA mu mel ni kon na le 17 décembre moom nar naa xat waaye li leer ba leer day te jara wax mooy ajjuma jiinu jëm li ci leer ba leer mooy ci la ñu ubbi nag Masaalikul Jinaan te xalifa bi mu ngi fii ci ndakaaru kon ñu koy wax ahlan wa sahlan na dal ak jàmm moom Sëriñ Muntaxa Mbàkke di koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram waaye nag dañ koy ñaanal kullu xalifa bu nekk ci réew mi ak sax ka jiite jàngub chrétien di église ba di ñaanal ñëpp jàmm yàgg maar waajal ajjuma moom dañuy dem masalikul jinaan ci kàttanu suñu borom ndax nag yàlla boo ko lebalee ker guddi la lay fay. mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de ànd ak yéen nag si jàngatu arène bi ginnaaw bu ñu génnee nag si weekend bi noppalu bu baax Babacar maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall ñu ngi lay nuyu di la ziar di internet yëpp di leen ñaanal jàmm et puis di ko sàkku ci ñoom ah. loolu am na solo Babacar mi ngi wax nag euh, te nag euh, am nañu fi sunu lamb am nañu fi record am nañu fi aussi euh, Leewtoo TV Leewtoo TV nag tey moom la ñuy commencé ndax demoon nañu fee ci arène nationale def réunion bu CNG organisé woon maanaam information AG d'information général surtout sur le bilan financier lu ñu liggéey ci at bi yëpp xaalis bu fa dugg xaalis bu fa génn lépp daal Leewtoo TV nekk na lañ fa leen ñëw na jox leen information bi Babacar équipe bu Leewtoo ni ngi fa xam euh, lu ñu mën a jàpp daal mooy euh, CNG bi saison bi bu mu bu mu commencé bu nu mu jeexee bilan financier xaalis bu dugg si biir kees bi toll na si 386 millions 922 mille 29 929 euh, mille francs CFA loolu la fa nekkoon Alioune Sarr mi ngi fa woon Tyson mi ngi fa woon manager yi ni ngi fa woon promoteur yi ni ngi fa woon ñëpp daal ñi ngi fa woon am na bu mu jeexee nag Leewtoo TV si micro Babacar jox na fa wax na fa ay ay sànn na fa waaw waaw noonu la fa demee sa samedi passé la woon fa fële nga xam ne mooy ci arène nationale mu nekkoon waxtaan boo xam ne tamit yaakaar naa am na solo parce que li tax mu am solo mooy sénégalais yàgg na ñuy laaj que ni wàllum xaalis bi ñuy dëgg mbër yi wàllum licence yi wàllum nangam nangam naka lay demee yooyu yëpp nag CNG bi samedi vraiment woote na nit ñëpp ñëw li nga xam ne ñoom ñooy composante lamb yi yëpp parce que mën na ñëpp parce que ku ci ne rek ci bànqaas bu mën a doon am na ñu la fa représenté woon moo xam promoteur nga manager nga mbër nga ak ku mu mën doon mu mel ni ki nag loolu bi mu amee génn nañu wax xaalis bi nga xam ne moom la ñu encaissé ci comme ay xaalis yi war a jaar ci ñoom dem ci mbër yi moo xam tamit ci li nga xam ne ni moom la ñuy fay entre médecins yeeg arbitre yeeg lu mu ci mën a doon daal indi nañ ci ay chiffres yoo xam ne ni daal ah dafa mel ni la ñu wax méngoo na ak li am wala xel mën na koo jàpp yaa ngi dégg loolu nag moom la ñuy xaar ci ñoom gëj nañ koo def nag mais démb def nañ ko ci liñ jàng tamit mooy ci ordre ministre bi xëy na lañ ko defee loolu tamit di nekk lu nga xam ne nii lu war de am la parce que ay boo leen yoree bu ñu duggee seen at ba at ba jeex war nga leen a tënkal la nga xam ne nii moom nga anke surtout mbirum xaalis am na nit ñi dañoo bëgg mbirum affaire xaalis jàppal bàyyi xaalis bi nii xaalis ba naa mel ni ki nag lu ci bëree bëri daal ker wax dëgg yàlla leer na nañ Alioune Sarr itam waxaat na ci ci yu nga xam ne nii tamit war nañ ko sax jël ci ay décision moo xam ci côté géew bi laak yu mel ni ki noonu yoo xam ne nii war nañ ko xoolaat gën ko defar mu gën a rafet ba nit ñi nekk ci kaw wala ki dagg bi yam di seetaan mun a ñëw xool li mu soxla ñibbiwaat si jàmm ku mel ni Tyson tamit wax na waaw parce que moom itam vraiment nekk nit bi nga xam ne kera wax na fa wax boo xam ne nii am na solo trop am na importance parce que jàpp na ne mbir mu mën a doon day foo xam ne mbir buy juddoo day day màgg su màggee itam nee na la cay topp mooy dee effectivement moom moo tax mu jàpp ne xëy na li fi nekk nii doxal bi yàgg na mais actuellement jàpp na ne ci ni ma ko déggee mooy mënatuñoo def lu ñu deful woon xanaa kay leneen mën a ñëwaat. yeneen xalaat ñëwaat yeneen kii ñëwaat su ko defee ñu mën a defaat leneen lu bokkul ak li fi nekkoon parce que tamit moom xëy na ci kàddoom jàpp ci li ñu déggee waxam mooy CNG war na sax mën a euh, dépasser wala ñu yore làmb tey ci niveau bi nga xam ne fa la ñu nekk donte ñu fi nekk depuis boobu ba tey tamit mën naa ne am nañ mérite parce que am na lu bëri luñ fi jot a def donte tamit mbir yëpp mënul am satisfaction totale. Babacar si cadre Tyson yooyu sax la des parce que Tyson nee na euh, ni ngi dégg des fois mëri naan CNG war leen dagg waaye nee na loolu du débat bi débat bi mooy dañu fexe ba làmb ji dox mër yëpp di si bëree VIP di di bëree parce que nee na soo seetloo dagg bi su dagg CNG bi lu mu bëree bëree VIP yi ñoom noo siy sonn ndax ñoom la ñuy gën dagg donc VIP yi suñu bëriwulee CNG keesu CNG du am xaalis Babacar. parce que moom sax dafa jël ci boppam exemple nee na moom bu dee moom maanaam moom moom nee na moom 15 millions dagg nañ ko ko boole ci aj ko 3 wax wa ba ba nii ñu koy waxee nii waxu ci kiiw dafa toog jàpp njàmburam xëy na nag moom li ko yàlla may ci wàllum xel wala lu mu àttan man ko gérer ñi ko mën bëriwuñu nit ñi nag foofu la ñuy rawantee des fois nit ki damay wax ne benn mag sax daf ma ko doon wax nit ki waroo soo amee lu naqari nit ñi xam ko mais waroo tamit soo bëggee nit wane ko ba mu ëpp maanaam nit ku ne comme Tyson da ko doon wax ci làmbam nit ki maanaam ne na da ngay gañe ci dignité non da ngay gagné ak boo gagné da ngay ànd ak humilité mais soo ñàkkee da ngay ànd ak da ngay ànd ak dignité moom xëy na noonu la gérer carrière am ba mu jeex moo tax nag mu xam ne fi mu nekk nii mbirum dagg bi du question bi moom li mu gëm mooy na xaalis am mbër yi nañuy bëri parce que nag fa dara nekkul deesu fa dagg dara te effectivement wax na dëgg ku fayekul deesu la dagg mais nag su promoteur yi ñëwee làmb ji dox bu keroogee xëy na loola des na ko gën a mën a lijjanti waaye nag daal te loolu moo wax yaakaar naa moom la xel gën a nangu mais ku bëréewul encaissé woo cent franc yaakaar naa ne kenn du la dagg cinq franc wala nangam waaw mu nekkoon réunion boo xam ne daal amoon na solo trop Babacar si màllum waxtaan boobu toujours si Leewtoo TV nit ñi xamal benn agent wu ministère bu nekkoon ministère de sports mi ngi fa woon nekk si cabinet ministère des sports moom lu mu wax mu xam lu mu jox xalaat mooy nee na c'est vrai que bilan financier bi baax na mais plus de trans euh, plus lu muy xelal waa CNG mooy pour prochaine fois dagg yeeg maanaam xaalis bi dugg buy génn joxe ay cutis maanaam pour wane que lii la ñuy dépense lii la ñu joxe maanaam ay reçu comme ni ñu koy tuddee Babacar voilà loolu loolu mi ngi si biir waxtaan bi. d' accord parce que lu tax mooy nit ki tey bu fekkente ne euh, parce que CNG administration la mën naa parce que état moo leen teg foofu ci euh, doolewu ministère de sports kon c' est très normal loolu agent ministère de sports boobu wax ñu joxe ay quittance parce que dagg nañ diw jox ko quittance bu maanaam indi li ngay dépensé lépp wane ko ci ay kii lool mooy li jaadu waaw parce que tamit yaakaar naa ne comme li ma wax rek xaalis moom dafa fu mu nekk rek jikkoy bukki lay yor dafay bëri coow yaa ngi dégg fu mu dugg rek ñu ngi ñaan kan yi rek muy CNG beeg mbër yeeg ñëpp a doon rek composante yëpp yàlla na xam ne ñuy ñuy bu ci jógee nit ñi mën ci lu leer lu nga xam ne day doon lu satisfaire doomu aadama yi bu mënta nekk cent pour cent tamit parce que ñëpp bokk benn xaal wala benn bane bu gis-gis loolu c'est impossible mënul ne mais l'essentiel que yow mi ñu dénk nga fexe def la maximum ba nga xam ne mën boo tëddee sa conscience di xam ne man liñ ma dénkoon teg naa ko ci aw yoon loolu rek man pour man mooy li nga xam ne moom moo am solo daal. Babacar suñu jógee si Leewtoo TV nag ñu dem nag si sunu lamb sunu lamb lu ñu xamal mooy promoteur yi nekkoon nañ fa naam mais balaa euh, débat bi di jeex ñoom daal dañoo gedd ndaje ba ndax ki nga xam ne mooy jax si mi ñu joxoon euh, moo nekkoon seen porte parole du jour. ku nekk da nga amoon deux minutes Jackson nag balaa muy wax euh, deux jeex donc CNG moom ak CNG nu xaw fa jàppante finalement jotul eggali sax lu muy lu mu doon wax finalement mu ko deux minutes daal looloo tax ñu ne deux minutes dafa ndaw finalement euh, a gedd xam naa ñoom promoteurs yi la tënk jox ko Jackson pour mu wax ko si papier bëri na benn xe boo xam ne nii xëy na deux minutes xaju ci woon ah ci biir loolu nag bi mu commencé développé ci la deux minutes am jeex après ñu ne ko nag sa deux minutes jeex na Jax tamit xëy na gis apprécié wu ko noonu parce que jàpp na li mu war a wax ko ci la leen nag ñun dañu war a wax ñun promoteur parce que ñun ñooy joxe suñu xaalis affaire yooyu loolu nag ci wax jooju am après docteur Alioune Sarr bi ko ne nag loolu donte yéen joxe xaalis mais xëy na yow du xamuñu xamuñu la ci attitude bi ak nii nga waxee parce que ñun ñoo joxe suñu xaalis du loo xam ne nii lu ñu war di wax la quoi xëy na loolu nag dama naan du sax du sax problème bu kii mais recadrante na rek waxante ba nga xam ne parce que promoteur yi moom comme lu ñu mënti wax rek ñoom ñooy bayaru làmb ji encore fois defe naa ne il faut que ñu gën leen a dooleel et puis gën leen a déglu bàyyi leen xel ba nga xam ne lépp li nga xam ne moom la ñuy indi di ko teg bu mu ngoog li nga xam ne moom moo war a jëriñ làmb ñu jël ko ko en compte parce wax na fa plus mbirum 15 combats yokk combats yi mais ba mu bañ a génn temps bi nga xam ne nii ah, mooy temps wu 10 combats yi ñuy bëre waaw comme li nga wax rek euh, ay bailleur maanaam tey ji promoteur su amul woon mën nañ jàpp ne CNG du am kon nag CNG waroon nañu mën a xolaat seen deux minutes yooyu xëy na yóbbu ko tamit ba 15 euh, ba 15 minutes parce que koo xam ne da jox xaalisam mu toog saison lëmm loo xam ne depuis 10 ans amul lu ñëw ne la deux minutes nga mën a pour wax loolu tamit xaw na yéeme tamit Babacar waaw loolu la xaw na yéeme trop vraiment xaw na mi mais waaw parce que tamit euh, dama gis ne xëy na temps bi leen jox gàtt na trop trop trop parce que bu fekkoon te man waxuma sa promoteur mais même ñeneen ñi sax parce que deux minutes moom pour nga wax ci ak problème mu làmb ni mu bëree jafe-jafe dana tuuti trop trop trop trop daal waa mais nag ñu ngi ñaan rek ku nekk rek dellu si sa xel ñu xam ne ñoo bokk li ñu bokk nu ñu ko xaajoo ñu fexe mu gën a rafet daal. Euh, journal aussi li ñu si ndaje boobu ndax moo nekkoon actualité weekend bi nee ñi ki nga xam ne mooy Yékini ak. Euh, Abdou Badji DTN national de lutte bi nekku na fa woon Babacar. waaw ñooñu gisuñu leen fa gisuñu fa Abdou Badji selal DTN gisuñu ko ah xëy na ay teq-teq la Yékini tamit gisuñu ko waaw mais nag euh, terewul ñi waroon def liggéey bi ña fa nekkoon ñoom ci njiital docteur Alioune def nañu ko. ñu ñëw nag si sunu laam des encore si sunu laam li ñuy wax ne école Habib Ndiaye si toujours si bilan yi def nañu 10 combats 6 victoires contre 4 défaites nañ daal Habib Ndiaye mi ngi xool ba léegi fan la yoonu nam war a nekk pour saison bi di ñëw. waaw xool gi de mooy liggéey rek ah, école di Habib Ndiaye comme ni wax rek bokk na si écrit yi nga xam ne ci mujj juddu Sénégal lañ bokk comme yàlla dimbali na leen nag ñu ngi participer xëy na bu ñu gënee defaru gën a améliorer seen liggéey yàlla mën na def ah, ñu gën a yokk ci côté combat ak côté victoire yi parce que tamit ay xale fa yoo xam ne nii am nañ ci ñoom yaakaar mais xëy na commune seen tête de muy Batista moom vraiment gisatuñ ko ci làmb ji xaw ma nag lu xew xaw ma dafa amatul combat wala mel ni ki noonu mais daal yaakaar naa ne ki yor tamit borom xam-xam la muy Abib Ndiaye kon defe naa bu ñu gënee liggéey rek leneen war nañ ñëw quoi parce que am na mbir yu fa nekkoon defe naa ñoom kooña ak ñooñu ñëpp kooña gisatuñ ko ci làmb ji yaakaar naa mu ngi bitim réew léegi voilà kon a liggéey Babacar nu jóge nag si sunu làmb dem si record record ni nga xamal ni que euh, si si waxtaan bu Alioune Sarr sekkoon ak acteur làmb yi samedi bi passé sa arène nationale nee nañu mun na am saison bi ubbi le 15 octobre bi Babacar. waaw moom loolu la wax sax ne le octobre la saison bi ubbi moom Alioune Sarr loolu la wax na ci lay ubbi bu ubbee le 15 octobre nag ah kuy waral def wàllum kayit yooyu yëpp ñu toppatoo ko après bu loolu passé nag jëm euh, ca kanam. ku bëgg a jël tëgg nga ñëw tëgg làmb loolu tamit mooy fi mu xëy na parce que nee na ren comme li amoon daaw yaakaar nañu doo am ren ren moom ci kàttu yàlla saison bi nañ ko teel a kii démarré bu ko defee gars yi teel a mën a bëree daal te loolu am na solo trop. Babacar nag si ndaje boobu noonu mooy euh, wàllum fay presse bi nee ñu euh, presse bu média bu amul exclusivité nee ñu si Alioune Sarr nee na ni ngi xool nu ñuy def pour presse bi mën a fay képp koo xam ne amul exclusivité combat bu benn promoteur maanaam na nga dugal loxo si poche. ah waaw mbir de day toll foo xam ne ni moom dañ koy teg ci aw yoon rek mu mën a doon muy man ak sama moroom ci yem ñëpp yem ci même pied d'égalité yaa ngi dégg ñu teg lu nga xam ne nii xëy na suñ ko tegee rek dina mën a nekk njariñ parce que tamit lu ëpp tuur olof yee ko wax waaw olof moom ne na lu ëpp tuur mbir nag su demee ba nga xam ne dañ jàpp ne war na déborder wala war na ëpp bay indi ay jafe-jafe ñu redresser ko teg ko ci aw yoon ba nga xam ne nii njariñ lay doon loolu moom yaakaar naa ne lu war a mën a nekk la mais ci kaw tamit mu mu nekk lu nga xam ne daal day tege fi nga xam ne nii fa la war a tege azir nii rek def dara quoi mais lépp nga jàngat ko ba teg ko ci ay traces yu wóor nga xam ne boo ko defee kenn mën na si bañ a gaañu daal. Babacar ñu jeexalee ak combat MMA combat MMA bi nga xam ni Bombardier moom lay moom la fas yéene def le 14 décembre fii si Dakar si Marius Ndiaye waa Leewtoo euh, point net ñu ngi ñuy xamal ni que yeneen mbër yoo xam ne fii lañ jógee aussi cosaanu Sénégal muy euh, booy Bawal ak ki nga xam ne mooy Reug Reug dañ siy bëree MMA Babacar. waaw loolu tamit alhamdulilah la ñuy wax rek sant yàlla parce que li mu waxoon la rek mbëri tey yaakaar naa ne fi nekk nii fi ñu toll ci seen carrière sportive war nañu mën a exercer yeneen sport sax yu bokkut ak bëri bi kese ça veut dire que MMA bi ci la bokk te gis nañ ne tey ñu ngi ci rëg-rëg bu ko si déggee loolu lu am so am solo la booy bawal tamit noonu dégg nañ ci Siteu Bombardier xam nga tafaatin déggoon nañ ko ci doonte jotul woon a jongante combat mais lu baax a baax la daal loo ne nii dina leen xëy na ubbi leneen porte ci àddina gën leen may tamit beneen esprit sportif te loolu da yaakaar naa am solo la moom dañuy jongante fi suñu réew te ay doomu bitim réew la jonganteel du ñu def lu dul nag moom nekk seen ginnaaw ñaanal leen yàlla muy Bombardier Boy Bawal ak Siteu ak Reug Reug ak ñoom yàlla na leen yàlla may ndam ci seen combat MMA yooyu parce que tamit lu ama am solo daal jërëjëf Babacar si kàddu yoon leen tàggoo di la jox di daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay Mère Sow di nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Astan Tandine DG Brahma Chéri Khadija Diallo di nuyu samay doom Mam Diara Penda bébé Fallou bébé Rokhaya ak bébé Junior nag naan nag félicitation Babacar si victoire bi nga xam ne Real de Madrid am na ko si FC Séville bi euh, weekend bi ñu génn. waaw loolu la àddina moo tëdd noonu rek neex ak naqaree fi ne rek xam ñun moom yàlla moo dogal bañ dee ba ma nekkee xale ba tey ma nekk di supporter Real loolu moom du dañ te man Babacar xaw ma jàpp di bàyyi noonu dama yàlla bindee bu neexee maa ngi Real bu naqaree maa ngi Real lépp fa la may fekk amul jafe-jafe fa laa jëlee treize Ligue des Champions te defe naa loolu kenn amagu ko si àddina bi si équipe kon loolu alhamdulilah euh, di tamit nuyu internet yëpp di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom mais tamit di ñaanal tamit sëñ Muntaxa Mbàkke bi nga xam ne actuellement mu ngi dakaar fii nekk suñu gan yàlla na ko yàlla defal fan wu gudd ak wér gi yaram mais di ko ñaanal xalif général ni ci réew mi yëpp di ko ñaanal sëñ Abdou Karim Mbàkke mi nga xam ne suñu soppe la ak sëriñ Mbay Si Abdou moom tam parce yàlla moo def ñun man ma soppal ko sama bopp maa ngi koy ziar bu baax a baax di ziar xalifa yëpp mais di wax kani rek weekend bi tamit vraiment amoon na yëngu-yëngu fu mel ni Lay Njaay taxawal na combat wulli de non kéwél ak Sunjata muy lu neex Leewtoo TV demoon na fa démb itam demoon nañu gé sitageg naa kër guy gi mu doon génte soxnaam ñu demoon fa tamit ak Leewtoo TV pour wan leen que ne rek ñun moom fekk li ñu war a jëli mu ngi am rek ci la ñuy nekk di ko jël daal parce que loolu moo ñu fi bàyyi lamb 100 pour cent la def moo tax duñ bàyyi benn détail di nuyu ñëpp internautes yi di nuyu suñu DG Pape Thialis Faye di nuyu Diaw di nuyu képp ku nekk fi nga xam ne ni moo di Leewtoo mais saa buñ jógee di dox daal jàpp leen rek ci làmb la ñuy dox bu du làmb moom ci Leewtoo TV mooy loolu kon daal yàlla na jàmm sax yàlla na xol yi féex ku am problème yàlla na ko yàlla faj nawet bi jeex ci jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ñëpp ñaanal jàmm.